la grande coalition Natangué Askan Wi présidée par le président Cheikh Alassane Sène a donc à travers ma personne et en ma qualité de mandataire national euh, procédé cet après-midi au dépôt de sa candidature aux prochaines élections législatives du 31 juillet 2022. Euh, comme vous le savez donc, après la collecte des, des signatures pour le parrainage, mais également après le dépôt de la caution à la caisse de consignation et de dépôt, l'acte que nous venons de poser cet après-midi euh, entre dans l'expression normale euh, du processus et de la procédure même qui gouverne euh, l'organisation et la participation à une élection, de quelque nature que ce soit. Donc nous sortons de ce dépôt très motivés et plus qu'optimistes quant à notre participation aux prochains jours électoraux. Euh, donc jusqu'à présent, vous devinez que nous n'avons aucune raison de douter de notre participation. Je voudrais profiter de cette occasion pour féliciter et remercier le directeur de la Direction générale des élections qui n'a ménagé aucun effort pour mettre dans de très bonnes conditions avec cette très grande innovation de taille qui a à procéder à tirage au sort pour le passage des déposants, ce qui nous a valu vraiment moins de bousculades par rapport à ce qu'on avait ci turu grande coalition natange askan wi bi nga xam ne président Cheikh Alassane Sène moo ko jiitee ma ñëwoon fi tey ànd ak différent responsables coalition bi yëpp ñu ñëwoon indi suñu candidature bi nga xam ne mooy mandargaal suñu bokk bi ñu war a bokk ci élection yi ñu jëm ci mois de juillet donc bi ñu ñëwee def suñu collecte parrainage ba pare ba yóbbu suñu caution lii ñu def tey moo doon ñetteelu acte bi nga xam ne ci lii ñuy organiser élection ku war a bokk élection da nga ko war a def bi ñu ñëwee tam fekk nañ fi ñoo xam ne accueillir nañ ñu bu baax a baax dalal ñu ma ci profiter rek di féliciter waale le directeur général des élections à travers innovation bi mu def nga xam ne mooy tirage au sort bi di déterminer passage yi fii par or nga xam ne aussi dàqal nañu buuxante ak xeex yi fi daan am yi ngi fi daan gis comme d'habitude kon ba léegi nii amuñu benn raison di inquiété wu ñu ngi jàpp ne que danañu bokk ci élection yi bu soobee yàlla ñu ngi leen di remercier jërëjëf